dafa tollu woon ci di nettali xisab salmaan alfarisi yi ba mu tuubee te sang ba di jotanteeg moom te laaj ko lu diis ndax wax ko ne ko danga may defal ñeenti téeméeri taati tàndarma yoo xam ne maanaam ñeenti téeméeri njëmbati tàndarma yoo xam ne boo leen jëmbatee benn du ca dee yëpp dañuy dekki ak ñeent fukki uqliya maanaam daa wax ne bi ma jotanteeg moom nangoonteeg moom sama sang ba la mu wax damaa ñëw ci yonent bi nag am kenn ku ko jox dara ci xeetu mbell mooy fajaahu ba'du nnaasi bi shay'in min ba'dil ma'adin min ba'dil ma'adin wa kaana qalilan maanaam am kenn ku wut lu bokk ci xeetu mbell waaye amatul solo ne yonent bi jox ma ko nekk ne ma demal fay ci loolee mu la laaj muy ñeent fukki ok yi ma ne ko waaw ah lii lu lii lu mën a fay li may laaj mu ne ma demal rek fay waaye nee na ci barke yonent bi ak barke bu loxoom boobee baa demee loolee ma joxoon ma di ko xeeb fay naa ci ba mu des mooy fa dahabtu wa addaytu almaala allasi alayya minha wa baqiyat minha baqiya nee na ma ne ko waaw tàndarma yi nag mu daal di wax waa Ansaar ni leen andi leen ma ñeenti téeméeri njëmbati tàndarma mooy taat yi nga xam ne moom la ñu war a jëmbat bu ngeen demee gasal ma rek pax yi ba mat ñeenti téeméeri pax xanaa fi nga xam ne fi mu war a suul njëmbat yi fi mu war a jëmbat njëmbat yi daa bëgg yonent bi daa bëgg saxaaba yi gasal ko ko ba mu defum pax nga xam ne moom bu dikkee mooy jël njëmbat gi daal koy sulal boppam ca pax ma waaw mu daal di wax saxaaba yi daal dem daal koy gasal noonu mu leen ko digale mu ne leen nag bu leen def benn taat maanaam bu leen jëmbat genn jëmbat bàyyi leen baa ñëw rek naka mu ñëw na daal jël loxoom ba daal di jëmbat mbooleem jëmbat ya waaye ci barke bu loxoom boobee jëmbat yooyu genn deexu ca te mbooleem ñoom ñëpp ñoo meññ ci at ma rek ci jëmmi at ma ci boppam ñoom ñëpp dañoo daal di meññ genn njëmbat deexu ca te ñoom ñëpp ñoo meññ ci at ma xam loolu lépp ci barke yonante bi la léegi mu daane leen ne sabbahat bi al xasbaawu maanaam téngali ay ay doj sàbbaal na ci ba tàyyi ñuy dégg loolu moom nee nañu sax du benn yoon dong dégg nañ mu tibb ay doj ci loxoom ñu dégg ñu fa teewoon dégg doja di sàbbaal ci loxoom ah yet dekkal na moom téng loolu almurmin yi na way ñàkk ña min mawti jëxdin ci deexuk bekkoor ah wasa boo xam ne texoon na alxawma nit ña fii ci moom zaadun ak yóbbal wa maawun akum ndox ah nee na mas nañoo bekkoor ba nga xamee ne am dara loolu lekk mbaa loo naan dafa jafe lool waaye téngam loolee xam nga ne ci barkeem la yàlla indi xéwal gu rëy rëy ñu lekk naan kon fa taxaddaa te añe bi saahi ci seen saa alfun junni jiyaahu ñu dul xiif wa taraw waate mandee bi saahi ci benn saa ci ndox alfun junni zina ñu dul mar andi lañ ko tuuti ci loo xam ne bariwut ci mbirum lekk ci mbirum dugub rek naka mu ko dugal loxoom rek yàlla barkeel ko ba ab junni lekk ca tam des ndox mu néew néew te fekk ndox jafe lool mu duggee ca loxoom rek ndox ma balla ball baree bari ba junni naan ca te jeexaluñ ko woofaa te matale na xadru baydatin kemub ab nen min mu baarin ci wurus day na salmaana borub salmaan alfarisi xiina xiina xaana ci waxtu wa teewee alwoofaawu matale njotoo ga loolu moo ñu tuddoon léegi kooku da ko laajoon lu bari lu mu ko war a fay ci wurus mu ne na yonante bi jox ko lu toll ne nenub ganaar ba mu demee barkeelu loola tax na fay na caa fay ba mat ba desal sax loolu barkeelu tengulee kaana nekkoon na juddu xaadee fi ko wooyee xinnan ab jaam fa ootiq te goree leef ko lamma ay naxat ba nga xamee ne ñor na al aq naaw cégg ya bi naxiili yi ci tàndarmaam ya loolu junjoon nañ ko léegi ba ko kooku waxee ñeenti téeméeri tàndarma nga may jëmbatal ci at mi te benn du ci dee ba waxtoon sax ñor nga ci at mi waaye da nekkoon rek yëpp ay jeeb bi maanaam benn bañ cee dee ba ko yonent bi jëmbatee ci loxoom rek gis nga noonu ñu ne ci at ma rek yëpp benn deexu ci te yëpp far meñ ci at ma afala ta'duroona ndax du ngeen gàntal yéen yahoot salmaana salmaan moomu lamma an xaratu ba nga xamee ne gaar na ko alxurawaa u taruk tàngooru siburu min zikri yi ci ak tuddam mooy li ñu yoon léegi ne ba mu yéegee ci ko garab ga fekk mi ngi liggéeyal sang bi sang bi di wax ak suuf beneen mbokkum yoxootam ci biir yonante boobu ñu wax naa daa ñëw ci dëkk bi ñoom ne dafa xaw ko ci kaw daal mel ni tëyu ko loolu lay wax naa yéen waa yoxoot loolu te ngeen a loolu salmaan def jombut waaw ndax ku xam lu baax moom ut ko ba tàyyi bu déggee lu ca bokk xawee ko gam xawee ci kaw daanu mel ni lu ko yowut ak na mu ko yitteele mu ne loolu lépp war leen ko cee yedd ndax jaabu na ci ku mel ne moom wa azalat te dindi na dindi na moom tengu loolu bilam si xaa ci làmbam ku la daayin jëpp jàngoro ak barat fu joo xam ne reyaloon na ko ati batun ay docteur wa isaawun akuk faj akuk saafara mooy ak faj dina tengu loolu raay na ba taayu jàngoro joo xam ne wëruñ docteur yi te mënuñu koo faj tengu lu raay ko rek mu daal di wér waxa yoonun ay batitam marat romb na moom tengal yi bi xaa ci ñoom wax ya te mbir moom ñoom rumba du may wànneen lañu fa arat xaa te mu wan leen maa loo xam ne lamtara mënu koo gis ak zarqaawu zarqaawul yamaama zarqaaw moom ñoo xam dafa mën a gis ba nga xamee ne léegi daana gis doxut ñetti fan benn yoon mu ne nag bari na bët yi wànneen bu mënutuloo gis bu ko loxo yonante bi raayee mu daal di bët yi daal di mën a gis lool ba gis loo xam ne sax zarqaaw moom mënu koo gis wa ahaadat te delloo woon na moom tengu loolu xalaa xataadata ci ku ñuy wax xataadata xay nan ab bët fa hiya moom bët boobee an najlaa mooy bët bi aj yaatu tey aj rafet xatta mamaati yi ba ak faatoom nee nañ ci xarak uxut ak bëtam dafa moom xataada bëtam dafa dagg bay lang yonente bi jël loxoom delloo bët ba ci fa mu nekkoon bët ba daal yi mel ne moo gën a rafet bët ba ci des sax te ba te ba ni mu faatoo bët ba dara sikku ca rafet lool mën a gis lool moo tax mun a banam faatoo mooy bët bu yaatu ba te mën a gis aw day atafaat ca lay taxoo xam nga dañ dafa njëkkoon wax lay taxoo xas seen yi bari uwati wacciin delluwaat lay taxoo xas seen yi ci teng li waaw mu ñetteele nag aw lay taxoo xas seen yi ak a neexoon mu jagleel ma bilas mit turaa bi ci fóon suuf sa mun xadamin ci ndëgg loo xam ne laanat nooy na as safaawu doj wa xayaa an ngir kersa mun masiha ci doxam ba ak neexoon may ma mu fóon suufas tànkam sa lay wax tànk boo xam ne bu ko mësaa dëgg ci doj doj wi ci boppam day nooy ba jeexit tànk ba di jafeeñ xam nga doj ni mu dëgëre te bu dëggee doj wi doj wa nooy ba fa tànk ba awoon di jafeeñ loolu lu yéeme la mawti il ax musi des na wax itam mawtil ax ma si ma ji sax daal lu ma gën a siiw mawtil ax ma si dëgguwaayu dëggukaayu dëggu la ëllëg si la nga xamee ne minhu nekk na ci moom lil xal bi ñeel xol bi witaawul ab laltaay isaa mab jeex yi ndeem sama tëddukaay bi ak xab ba ñagas na ak neexoon tànkam boobee mu ne ko nóot ci sama xol bi rek lay bëgg a wax ak neexoon tànkam boobee mu dëgg ko ci sama xol bi ndax lu sama lal naqari naqari xam naa ne bu ñu noot tànkam ci sama xol bi rek xol bi sedd tëddukaay ba neex xam nga xeejoon na almasjidu jàkka ji alxaraama ji di ormal bu moom shaaha ci doxut ndëggu loolee wala meen sa tafàttiwut iliyaa u jàkkay baytul maqdis xabdahu ab ciram moom itam nee na jàkkay kaaba ji am na daraja ak orma am na titre bi réy réy ci dëgg fa tànk yonante bi dëgg maanaam doon nga mu doon ab jaamukaayam loolee lu réeré la ba tey nee na baytul maqdis sax ba yonante bi dara ñaan te jaari fa dong rek waaw jaari ba mu fa jaari nga xam ne dafa jóge màkka dem baytul maqdis loolee dong nee na am na ci wàlla moom jàkkay baytul maqdis wari mat new woon na moom ndëggu loolu idrama ba mu sànnee bi xaa ca moom jëlamal léegi lëndami guddi ga ndax ilallahi jëm na ci yàlla xaw foofu ragalam ga war a jaaw ak yaakaar ga day nett li ba mu daan taxaw di naafila di julli di julli ba mujj tànk yooyu newi moo tax mu naan dëgg loolu newi woon na moom ko jëlee di ca taxaw di ci jànkoon teeg loolu mi guddi gi boole ragal yàlla ak yaakaar ko ba mujj ñu naa ko waaw yow yàlla baal la ndegam am nga sax bàkkaar yàlla baal na la ko lu tax kon ngay def lii mu ne afala akoonu abdan shakoran ndax du ma doon jaam bu dib santkat ndegam yàlla defal na ma loolu dam yet nàccoon na moom dëgg loolu ba tey fi lu waxaa ci xare ba li tukk si ba ngir mu fàggul tiiban ak tey maa la nga xam ne araaxat tuur na ko ak shuhada way dee ñu ci jihaar mu ne dami ci deret nee na ndëggam loolu mas naa nàcc ca xare ba ndax nàccam googee dana fàggul deret yi ci des maanaam deret yooyu dee ñu ci jihaar mbokk ñi seen deret nàcc ci jihaar ja nàccum ndëggoom li waaw moo leen di fàggul ak tey moo leen di fàggul ak barke maanaam daal ndëggoom la nàcc ba mu nàcc ci xare ba jox na ndam lu rëy rëy gaa yi ci des yi nga xam ne ñoom it seen deret tuura na ci xare ba foofu la moom dëgg loolu xuttubul mihraabi mooy kuurub jaamukaay ba muy mihraab ba wal xar bi ak xare ba kañ daarat baraana mu wëndeelu xale yaa ci moom arxaawul ay gënn fii taaxatin ci topp xam nga xare amul gënn waaye xare bi bu tàngee ron ba mel ni gënn di ron day wane ne yonent bi ci bopp moo doonoon kilifa ak jàkka ja moo doon kilifa ak xare ba baraana topp yàlla goo xam ne day ci jàkka ja mbaa day ci xare ba moom moo nekkoon kuur ga mooy moo nekkoon kilifa ga nga xam ne moo ko taxaw ñu topp ci gannaaw wa araahu danaa ko jortu loolu la ñu sekkin doonte dala dalawu toon bi xaa ci ndëgg loolu xablu ca bu jëkk xiraa an ba ñu wax xiraa maa jot kon rëng-rëngi bii ak moom am ñu def bihaa ca moom mu dellu ci ndëgguli ak da maaw dajoo ak da maaw dajaa firi géej waaye foofu daju rek lay firi day nett li xisab yonante bi mësa yéeg ci kaw doju xiraa moom ak Aboubacar ak Omar ak Ousmane doj bi rëng-rëng yi man doj dafa yëngutu mu nekk waa ji dalal ab yonente moo nekk ci sa kaw ak ab siddiix ak shahidaan moo tax mu ne axbara an qadiyatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu kaana jaalisan ala jabali hiraa'in wa huwa jabalun ma'rufun bi makkata wa ma'ahu as-sahabatu taharraka bihi al-jabalu فقال له صلى الله عليه وسلم اسكن يا حراء فإنما عليك النبي وصديق وشهيدان yonent bi moom xam nga ne moom la as-siddiq nag mooy sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu wa shahidaani nag wa shahidaani sayyiduna Umaru radiyallahu anhu wa sayyiduna Usmaanu radiyallahu anhu xam nga Umar dañ ko rey loolu moo ko jox daraja shahada Usmaan tam gis nga noonu dañ ko rey Usmaanu man qad qataluhu wa idan yurattilu kitaaba mu'til akthari moo tax mu tudd leen shahidaani mu ne nag bu fekkoon du woon la la ko yonent bi teg ndëggoom ne ko waa ji dalal ak yonente moo nekk ci sa kaw ak ak siddiq ak shahidaan bu toll loolu defe naa ne kon xa dajoo noonu bi daj dajee moo wéy rek bu bis penc xanaa du dal kon bu ku ne da dalal kon du dal xajaban maa ngi yéemu yéem li kuffaar yi ñeeroo wedd ñi zaadoo daliku nañu dalaalan ak cànkute billa sii ca li nga xamee ne fii nekk na ci moom ihtidaaw ak dindiku ak gindiku li xoqoo li ñal xel yi mu ne man ci yéefar jaaxal nañ ma alxuraan mi nga xam ne dañ ci dolli ko gindi ko aw ci yoon ñoom ñu fàttali dolli ko réer ak aw sànku walla si la nga xam ne walla si la nga xam ne yas aloona danañu ko laaj min ko ci yoonante bi kitaabul ab téere la mun salun bu bu wàcce xadd ataahum ba dikkal na leen war ci xaawul ak bu yéeg mu ne dañoo wax yoonante bi ne ko bala ñu laa gëm dangaa yéeg ci asamaan wàcce ab téere mais loolu nag boo ko dee seet dañu ko yëgu waaye am na ndax bu dee yéeg yi moom yàlla yéegi woon na ko ci asamaan bu dee téere bi tam alxuraan a ngi nii bàyyi ko ci asamaan muy téere boo xam ne téere bu yéeme yéeme la téere bu doy waar boo xam ne moo féete kaw mboolem mu gise yëpp awalam yekk fihim ndax doyu leen minallahi bu tukkee ci yàlla dikrul ab téere fii boobu nekk na ci moom rahmatun yërmande linnaas ñëw nit ñi wa shifaaw akuk saafarawo mu ne xanaa kay ni ko suñu borom waxe awalam yëkk fii moo anna anzalna alayka alkitaaba yutla alayhim ne loolu rek mooy dëgg alxuraan ji yàlla wàcce bu ëmbal doomi aadama yërmande ak saafara seen jàngoro saahir ak baatin mu ne loolu doon na muxjisa jërul laaj jeneen kiimtaan kooku rek mooy muxjisa gi gën a rëy ah jasa lottal na al insa nit wal jinn ak jinne ayatum jenn laaya minhu ci moom alquran fa hal laa tati ana lu tee mu dikkee bi xaa ci laaya jooju albulaxa way mën a wax ñi ne alquran dafa yéeme ndax ni ba ni borom alquran waxee ne la in ijtamaxatil insu wal jinnu xalaa an yatoo bi misli haada alquran yi laa yatoona bi misli walaw kaana baaduhum li baadin zahira ne loolee mooy dëgg leen nit ak jinne buñu maasee woon ci bëgg ci andi jenn laay ju mel ne moom rek ju mel ne alquran duñ ko mën nga tax mu ne ndegam waa xoreysin ak ñoom ñu ko doon jéem a weddi ay waxkat lañu bañ leen di yéem ñu leen tee ñu jéem a roy alquran boo ko bokk jenn laay sax bokk loolu moo wane ne kon te gi te gi mu leen tëx ñoom ñëpp moo wane ne kon wax yàlla du waxi muhammad tux di dana jubale ku la yemoon ci bépp bis alquraa way jàng ñi ilaa saamihi jëm ci way déggam moo aji saatin ay muxjisa min lafdihi ca baatam ba aw nee na bis bu nekk boo déggee ñu jàng alquran day mel ne dangay dégg lu wees mën naa am sax daa nga ko jàng ay yoon yoon waaye mën ngaa dégg ñu koy jàng rek nga dégg ci ay kiimtaan ak mu toll la foo xam ne bu fekkee sa xol set moom mën nga caa dégg loo xam sax dangay daanu tata xallaa dana takkaayoo bi ci alquran almasaamixu nopp ya wal afwaahu ak gémmiñ ya fa huwa moom alxol yu moo di takkaay ya wal xalwaawu tey aji neex ja alquran nee na day neex ci nopp neex ci gémmiñ yaa rek lay boole nga xam ne kon gémmiñ gi dañ koy bànneexoo nopp itam di ko bànneexoo nga xam ne moom daal loo ko bari la bari la jàng ci sa làmmiñ du tax mu soppi la loo ko dégg-dégg ci say nopp lu mu bari bari day mel ni sax day gën a yees fi yow bu fekkee ne ànd nga ak xol bu set raq sew na law doon ci baat waraaqa te mu yéemuloo maanan ci maana fa jaa atti dikkee alxansaawu jigéen ji ñuy wax xansaawu fii xulaaha ci ay koddaayam wala ci ay meloom waxal yiha ak takkaayam nee na alquran baat bi ci boppam rek moo njëkk a yéeme maanaam yi gën a yéemee ti boole ca soo seetloo ñaari taar yi mu boole ci biir ak biti daanaka jigéen jooju ñu wax xansaawu tam doon jigéen ju rafet boole ko mën a wax lool boole ca dafa mel ne xuraan mënees ko nuru waaye day mel ne moom moom daa waaje woon taaru alquran bi ak waxin warxetam wi dañ ko daan yéem alxansaawu boo xoolee saraay mu naa bi fatxi bi fatxil xaa i uxtu saxrin mooy mbokk mu jigéenu ku ñu wax saxru wa kaanat shaaxiratan mufliqatan wa kaanat min ajmalin nisaay wa qad aslamat fi zamani sayidina Omar radiallahu anhu yonent bi daana ko wayloo sax bu waxee bëgg nopp mu ne ko dool li waxaatal tax mu ne nag daa mel ni xan saabu moomee daal alquran neexutu misaal ci ab taar ci biir ak biti waaye rafetaayam ba ak wayam yu yéeme ya kàddoom gu yéeme ga day mel ne daa laal ci alquran ba xaw koo mën a misaal tuuti ne alquran sax mel su ko jege wa arat naa wan nanu fii ci moom xawaami da fadlin way gii mi ngëneel way gii mi ngëneel mooy way na buy ngëneel riqatun ak sew min zulaalihi ci mëngatam ma war safaawut akub sell mëngat ci cosaan mooy ndox mu neex mu sell sell dafa woon alquran yërëmtalu gi mu yërëmtalu ak sell gi mu sell waaw moo tax dalay wan ay ngëneel yu bare bare bare bari yoo xam ne rek da yokku bu dee koo xam ne ku ko amuk xàmmiku la te boole ci xolam set moom lam ci am ci ngëneel ak i secret te gën di bari rek di gën di inama tajitali naka dana feeñ al wujuhu kanam ya isama juliet ndéem xacceef na al asdaawu xomaag ya xan mit aatiha wali seenub seetu nee na ci misaal kanam lu mu rafet rafet boo dee xool ci seetu te fekk seetu ba set wecc boobu ngay gën a gis taaru kanam nga waaye seetu bi bu fekkee dafa tilim lu kanam rafet rafet boo ci dee xool ci seetu booba doo xam taaru kanam nga alxuraan tam nee na noonu la mel lim bari bari lépp ci ay maxnaa ak ay secret ak yu yéemu borom xel yu borom xol yu set yi wecc wecc waaw ci la taaru alxuraan ak ay maxnaam di gën a feeñ waaw ndax seetlu nga ni waxee ab seetu bu fekkee dafa taq ribés sa kanam lu mu rafet rafet boo taxawee di ci seetu itam daanaka doo gis sa kanam bu baax doo gis taarub kanam gi waaye nag boo xëccee seetu ba mu set kanam gi rafet na nga taxaw di xool nag waaw foofu la ñuy gën a gis taarub kanam gi alquran it neen noonu la mel moo tax saraabu ci suuf mën a fakka zalika miraatul qulubi laa tadharu laha alhulumu wal mahaarifu min alqurani wa xayrihi illa isa tahurat wa quddisat min addunubi wal mahaasi suwarun ay saar minhu ci alquran ashbahat niru nañu suwaran ay melo min naa ci nun wa mislun nazairi te kem ndend yu jigéen ñi la al nudara u ndend yu góor ya nee na ni nit ñi mel nga xam ne mën nañoo niroo lool waaye du tee ñu wute anam wute yu bare bare bare bare xam nga nit ñi ñoo wute ci ñu leen yàlla sàkkee léeg-léeg nga gis ñaari seex sax ñu niroo lool lool waaye ci loo ko seet seet rek gis ñu wute am leen wutale lool lool ba tey mu ne saari alxuraan noonu lañ mel mën ngaa gis ay saar yu muróo nii ba ci laay yi sax mën ngaa gis laay yu muróo nii waaye du tey rek kenn ku ci nekk am na lu wutaleeg sa morom dem naa dem sax ba xisa yi bu alxuraan dee nett li ni ki xisab Moussa bi ñëw na lool béy yu bare bari waaye na mu koy nettalee fee na mu koy nettalee fee lu mu niróo niróo rek du bokk mu nag ñu nit ñi mel bokkuñ leen yàlla sàkkee te ñu wute lool te boo leen gisee defee ne benn lañ te bari lañ wute lool saar yi tam ne noonu lañ mel mu ne ñoo niróo ba ci laay yi waaye rek du tee kenn ku ci nekk am sa secret bopp ak yu la teqaleeg sa morom yu bare bare bare bare wal aqaawil wax ya hindahum fa weddikat yi kat tamaasiil yi ñu ngi mel ni ay nataal falaa yoox yi man naka bu mu la defeleloo mukk bu mu la defeleloo mukk al xutaba al xutbakat yi ah nee na ñuy wax ci alxuraan naa ak njabar la wala ñu naa way la wala ñu naa asaatil awal yi nee na yu mel noonu bu leen déglu la ñuy wax du dara mu ngi mel ne jëmmi luñ nataal ak jëmmi juñ nataal xam nga tey nataalub gaynde wuti na ak jëmmi gaynde waaw nataalub dëkk wuti na ak jëmmi dëkk ba waaw nee na wax li lay wax ne ci alxuraan di la ko misaal naa la way laag ak njabar laag asaati loolu yëpp ne noonu la mel li ñuy wax buñ ci déglu dara mu ngi mel ne jëmm ak nataal ba rek li ñuy wax daal dara du ci dëgg li nga xam ne moom la ab nataal sorek doon dëgg-dëgg ba daal moom la wax weddikat yooyu sorek dëgg-dëgg yi la alxuraan doon ak lu baree bari abaanat biral na aayaatuhu ay kiimtaanam wala kam lu baree bari abaana biral na aayaatuhu ay laayaam moom alquran min xuloo mun ci ay xam-xam xan xuroo fi walis ay araf abaana yu biral na xan xaa walis leen alxijaaw ijji ga ijji mooy ni ngay waxee baa siin miim di ijji araf yi nee na alquran ñu ngi ko toggalee ci araf yi yi xam ci arab araf yi nga am araf yi nga xam làngu arab xam amee ko muy araf yooyu ci lañ toggalee alquran waaye teew nee na li ko li mu bàyyi ko ci suñu borom tax na fu mu toll di feeñal ci xeeti xam-xam ak xeeti kiimtaan loo xam ne dalay jaaxal te moom ñu ngi ko tëggee rek ci araf yooyu araf yooyu nga xam ne moom mooy araf abajad rek ci lañ tëggee alquran waaye la mu bàyyi ko fi borom bi nag tax na li mu ëmb ci xam-xam ak secret kenn xamul nu mu toll. moo tax mu ne fex yee ñoom laay yooyu kan xab bi ñu ngi mel ne pepp wan na waa akub kemb. axjaba yéemuloona ak zurra baykat ya min hu ci moom sanaabulun ay gub wa zagawun akuk sell waaw nee na alquran daal ni nga xam ne moom la mën a baree ay xam-xam ak ay secret yum lay wan ci kem na sa xol sete ak na sa xam-xam baree mu mel ne baykat yi baykat yi bu ñuy bay dañuy ji rek benn fepp wala benn kemb rek mu toj maanaam bu saxee mu daal toj benn gub rek mën naa andi pepp yu baree bari ñi nga xam ne moom la bay mën a nangoo nangu daal ba nga xam ne la ci nekk ci pepp doo ko mën a wàññi alxuraan noonu la mën a joxe ay xam-xam ak secret ki nga xam ne moo koy jàng ak setantal bu fekkee ne xolam set na ñi nga xam ne moom la baykat yi yéemoo ci benn fepp bañ fa defoon mu sopp ko lu dul jeex waaw noonu la ay alxuraan yi mën a joxe xam-xam yu bare bare bare ñi nga xam ne ñoo koy jàngate seen xol set ñu ànd caa ko leer fa ataaloo te yàggal nañ ñoo weddikat yi fa ataaloo te yàggal nañu wala guddal nañu fii ci alxuraan ak tara du ne déng déngi war rey bi ak sikk fa xaaloo te ñu wax ne sixru njabar la wa xaaloo te ñu wax ne itam iftiraawut ak duur rek la waaw ñoom ñi nga xam ne ay weddikat lañu rek nag ca la delluwaat ne ñoom wax nañ ba tàyyi ci alxuraan wax yu demee noonu ñu wax naa njabar laag da koo duur rek wa idal bayinaatu ndeem lay yu bir ya maanaam ndeem lay ya di way leer naññ ndeem lay ya leer nañ lam toxoni jëriñuñu jëriñut chey an dara faltimaasul huda kon sàkku jub bihin na ci ñoom xanaa un ab coono la waaw nee na ñi nga xam ne ñoo wax ci alxuraan naa ak njabar laak aw dóor laak neexu ñu waxal ndax bu fekkee ne lay yi dafa leer nañ fi sa kanam maanaam yoon wi yi tax a gindiku dafa leer nañ fi sa kanam te nangu woo caa aw waaw ku mel noonu moom nee na mënees koo gindi ndax ki nga xam ne moom ñàkk xam la mënees na koo xamal mu xam waaye nag ku gis lay yi mu leer naññ nga teg ci sa tànk nag pexe jeex na ca wa ida dollat ndeem réer na alxuqoolu xel ya xalaa xilmin ci kaw ak xam famada kon ana lan mooy la nga xam ne taquluhoo dana ko wax an nusaxaa way laa biire ña waaw nee na bu fekkee ne kooka dafa xam ba noppi topp bànneexam nga xam ne kon la ko tax a sànk moom topp bànneex dong la waaw ku mel noonu nee na jekki di ko laabire xawma lu muy jariñ kon laabirekat yi xawma lu ñuy jekki di waxati di xaw a tombeeg laay ji suñu borom ne afara ayta man ittaxada ilahahu hawaahu ba mu daaneele ko teg na ci sax wa adallahu llahu ala ilmin ba àgg ci fa man yahdihi min baadillah dafa tollu woon ci di wax naa bu xel yi sànkoo ànd ak gindiku bu wér a wér ci biir waaye nag taxu leen nangoo aw ci yoon kon way laabire yi ñoom ana luy seen njëriñati maanaam buñ jekkee di laabire itam lu muy faj du faj dara xawma xiisaa yéen nitu xiisaa xaamaltum jëflante ngeen nag xawma muusa nitu muusa billazi ci li nga xam ne xaamalatkum jëflante na ko yéen alxunafa u jullit ñi dafa wax ne yéen ñi nekk ci diine xiisaa day ni ngeen jëflanteeg yahuud yi muy nitu Moussa daa muroonteeg ni nga xam ne moom la jullit ñi jëflante yéen ñii kon way weesoo ko dee gàttal da ngay wax ne yéen nitu xiisaa da ngeen a gëm Moussa ak yahuud yi te ñoom yahuud daal di weddi seenub yonante muy xiisaa akub téeréem waaye yéen itam jullit ñi dañoo gëm seenub yonante muy xiisaa akub téeréem muy linjiil yéen ngeen wëlbatiku weddi muhammad weddi ab téeréem muy alquran moo tax way woo sax loolu lay gën a leeral mooy saddaqoo dëggalal nañu ñoom niti xiisaa yi kuddakum seeni téere yéen yahoot wa kazzabtumu te yéen weddi ngeen yéen yahoot kuddahumu seeni téere ñoom nasaraan inna za naka lii la bi sa bon na albawaaw deltu gannaaw ga wala albawaaw ngirte la albawaaw saraabi ne daa bëgg wax ne albawaaw mooy assaniihu allazi rajaatum bihi alqahqara jëf ji nga xam ci ngeen deltoo gannaaw fekk na albawaaw moom day firi rek la nga xam ne moom la kooku amee ci jëfu ja moo xam njariñ la moo xam perte la daa wax ne ñoom nasaraan dañoo gëm seeni téere yéen yahuud te mooy tawraat yéen nag yéen yahuud ngeen weddi seen téere te mooy ngeen weddi linjiil mu ne nag lu bon bon nga ko ba tey nag ñëw nasaraan loolu lañ fayee jullit ñi jullit ñi moom dañoo gëm xiisaa akub téere muy linjiil te nasaraan nag moom nanguwu ñoo gëm muhammad nanguwu ñoo gëm alquran law jahadnaa doonte weddi woon nanu juhoodakum kem seen weddi lastaway naa kon nu yemoo awalil xaq ndax ñeel na dëgg istiwaawun ak yemoo bi dalaali ci réer dafa toll woon ci di wax naa awalil xaq ndax ñeel na dëgg istiwaawun ak yemoo bi dalaali ci réer ci sànku daa wax ne ñun jullit ñi yàllaa nu baaxe nu gëm la dala ci aadama ci ay yonante ak seeni téere ba ci muhammad mu nu yàlla yónnil mu ñëw ci nun bu nu weddi woon dara ci loolu rek yemanteeg weddikat yi mooy yemanteeg yëxoot ak nasaraan waaye nag loolu yàlla na ko baaxee ndax dëgg moom warta yemoog ci cànkute mukk nun moo nekk ci dëgg ku bokkute nun rek moo nekk ci sànku te dëgg ak cànkute duñ yemoo mukk maa lakum anam leen ñeel ixwatal kitaabi yéen ñoon téere bi day ame max naam yaa ixwatal kitaabi unaasan mbir mu ngeen di ay nit lay sa yoxaa nun deful sàmm lil xaq ñeel dëgg min kum ci yéen ixaa un wala re ixaa un day firi ak mbokkoo aku dimbalante moo tax faraa bi naa ay mu aaxaatun wa mu xaawanatun min kum raayan lil xaqi bi tasdiqi neen waaw man daal yéen waa téere bi bi ni ahlul kitaab muy al yahud wa nasara lu jublu ci ahlul kitaab alquran dana leen di wooye noonu lu bare bari nañ leen yéen daal jaaxal ngeen ma dëgg daal du ngeen ci sàmm dara dara ci oroma mba àq xanaa koo xam ne danga ne téere ci nun la cosaanoo boo déggee dëgg war koo xam te jox ko àqam waaye yéen daal jaaxal ngeen ma dëgg daal moom ngeen ko nangoo jox mukk dara dara ci àq mba orma yax sudu dana añaane al awalu aji jëkk ja al axira aji mujj ja wa ma zaala te dañu toon kazaniki nii al muhdasoona ñi yeex a ñëw mooy ñi ñu sos wal xuddamaa ak way jiitu ña ñu way njëkk ña naka jëkk nee na ki nga xam ne moo jiitu day añaani ko ko mujj dikk ndax daraja ji mu amoon bu gisee ku koy folli si rek di bëgg a yemoon teg moom ba am di ko bëgg a jiitu loolu daal di koy naqari mu daal di weddi ko mujj ñëw di ki gis nga yahood dañoo nekkoon ci kaw suuf yàlla jox leen ab téere ak daraja léegi nag bi xiisaa ñëwee andi lin jiil woote woote bi wees ñu añaane ko wax wax ju ñaaw a ñaaw ci moom ak yaayam mu ne na ko jekk rek noonu la képp koo xam ne dafa mujj ñëw ñi ko jëkkoon dañ koy añaane ndax ñi jëkkoon daraja ji yoroon la ñu bañ a folliku bu ñu gisee ku leen di folli si rek faaw ñu añaane ka leen nar a folli